junior ak Zir Rougas Mame Balla junior moom ngeen jàkkaar lool moo leen wan ginnaaw Zir Rougas moom ngeen jàkkaar lool xale yi ñu ngi ñoom ñaar ñaari xale yaa ngay léewtoo Mame Balla cokkaas na léegi waaye dalut Zir tamit ma ngay cokkaas attention ñaari xale yaa ngay léewtoo ñu ngay léewtoo Zir Rougas Mame Balla Junior moo nekk troisième combat bi ndeysaan troisième combat nekk noonu ci biir géew bi waaye actuellement nag fii rek ngi tuus Mame Balla moo féetee ndeyjoor Jules Rougas moo féetee càmmoñ ñaari xale yaa ngay léewtoo ndeysaan waaye furi yàlla ngay lu neex laa ilaaha illallaah ñu ngi noonu attention Mame Balla Junior Gris ñaari xale yaa ngi ci biir géew bi ñu ngi lewtoo attention Mame Balla jokkaas na ñaari xale yaa noonu diggante Zil Louga attention attention Mame Balla ngay dóor Zil ngay fay attention laa ilaaha illallaah xale yi dañoo ñimante de laa ilaaha illallaah xale yi dañoo ñimante Mame eh, ñaari xale yaa ngi ci bi attention attention Mame Balla Zil Louga ngay dox ci kawam attention ñu nga ci côté saako ya Zil dóor na léegi Mame fayu Mame Balla jokasa na léegi eh doo mu daanu laa ilaaha illallah doo mu daanu Zirnougas doo na ko mu daanu oh xale yi ndeysaan laa ilaaha illallah jëli ba rëy na waaw waaw waaw def nii ndeysaan dóoral ma dóor la dóoral ma dóor la foo kenn dóorat moromam mu daanu laa ilaaha illallah yenu na ko suba yenu na ko suba laa ilaaha Zil Zil a noonu. oh xale yi bëri nañ ndeysaan bëri nañu xeex nañu waaye ñu ngi doon ñu ngi feet palay daw nañ saabante lamb la ndeysaan yéen a bokk ndey ñoo bokk bàyyi Zirou am na ndam ci kaw Mame Balla Junior ndeysaan boobu ne ko troisième combat biir kër bi